waa asalaamaaleykum mbokk Sénégal rawatina euh, mbokku patriote yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla mi am jàmm yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm. waaw di bëgg a wax rek ci le 16 mars nga xam ne c'est une date capital président Ousmane Sonko war wuy ji tribinal le 16 mars nag. moo war a doon mitin bi gën a rëy ci meeting bi Ousmane Sonko organisé Sénégal man gisuma ne le 16 mars convocation tribinal la man dama gis ni meeting la meeting boo xam ne moo moo mooy gën a rëy bu Mbàkke bu Kër Massar boo leen boole woon waaw boroom xel yi nag laay waxal bu ko defee mobilisation général le président Ousmane Sonko soxla mobilisation général le président Ousmane Sonko soxla. bu leen xaar bale le jour J ngeen di déplacé wu di ñëw ñëw leen même une semaine avant trois quatre jours avant ñëw leen ci capital bi ndax ci capital bi lay xewee sénégalais yépp ak fu ngeen mënta ne ñu ngi leen di wo ngeen ñëw accompagner seen leader. léegi nag dafa am pexe moo xam ne Macky Sall ci la nekk moom ak ñi mu àndal ndax mbir mi boo ko analyser rek da ngay comprendre ñoom fan lañ jëm. keroog la xewoon bu ñu génnee président Ousmane Sonko def ko ci oto blindé bi kooku phase test la woon loolu phase test la woon testé nañ ko mu réussir loolu moom mooy système bi nga xam ne léegi moom lañu bëgg a jël maanaam bu président génnee këram dañuy bloqué convoi bi daal di koy rocc def ko ci oto blindé yóbbu ko tribunal ndax am na loo xam ne moom la ñuy bañ. mooy mbooloo topp président Ousmane ko parce que président Ousmane Sonko nag léegi adduna moo koy seetaan adduna moo koy suivre muy CNN di France 24 TV5 Monde Afrique Média foo dem ci adduna bi BBC léegi dañuy bàyyi xel président Ousmane Sonko. kon nag mbooloo mi nga xam ne ñooy topp président Ousmane Sonko fépp fu mu romb mbooloo mi gën a am doole gën a yokku ba adduna bi yëpp gis ko loolu la Macky Sall bëgg a bañal président Ousmane Sonko. loolu rek la bëgg a bañal président Ousmane Sonko te moom Macky Sall ba ñu ko convoqué dafa ànd ak ay mbooloo ànd ak ay sympathisants am ànd ak ay militants am Idrissa Seck ba ko convoqué dafa ànd ak mbooloo constitution moo mayee loolu ñu bugg koo xañ ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko lànk leen bu leen ko nangu. ñun nag li ñu mën rek mooy analyser li ñu mën mooy jëfandikoo suñu xel jël suñu temps analyser. jéem a xool ñoom lan mooy seen i pexe ak yan solution lañ ci mën a andi kon nag les patriotes bu yeboo ngeen xam ne lii mooy pexe Macky Sall ak ñi mu àndal nañu bloqué convoi waa ji génnee ko ci otoom def ko ci voiture blindée yóbbu ko daar daar tribunal bu ko benn booloo topp. lañ naan pour sécurité am la ak loolu yëpp ay waxu ku daanu ci sareet la ay prétexte dong la mbooloo rek lañuy ñuy bañ mu topp ko. gunge ko kon nag les patriotes yéen it xool leen naka ngeen di def ba ñoom loolu ñu nar yéen aussi ngeen am ci ay pexe man lii rek laa amul lu may wax di leen sant di leen gërëm jërëjëf.